ànd biir xeer raay bi kañ la. bu wow kongu bi. kañ dañoo wóor. waaw. mais la dimanche duñ wóor dimanche. ah d'accord. ñan nga àndal mafia bi. waaw. mafia dëgër bi. bar sëñ Bamba ñoom Njawar. Uh-huh. ñoom Bàcc Aliou Doxaar. Uh-huh. njool mi. ino borom jooyi ñoom Mbaye Cissé. Uh-huh. Booga Zar. sama safar rëngi. kii mooy chauffeur bi. xalaat ñàkk la. Matar. xanaa moto la oto. maanaam sama reliquat. Ah. su ma ko jëloon oto laa siy jënd. lañ ma tagg ba mu des 2000. sa reliquat mat na lañ ma jox ba ma bëree ba pare. loo def. moo ma jaaxal. 2000. tey ndekkiwu ma. su ma nekkaloon sama kër papa. Ah. du ma añ. waaw mais waxoon nga ma ne booy bi waxoon naa la ko ba tey gis nga waaw. fan nga si 2000 yi. nañ ma yor sama xaalis. dama dama ay maara xaalis. yu bëri bilaay. ba nii nii mafia bi fu ñu nekk. ah moo ma jaaxal. mafia bi duñ jëndee xaalis jox la. mafia bi cabuñu dañoo jeexal. combat. combat capital laa doo bëre. bilaay walaay taalaay. tey combat bi duñ ko doon def dafa bëri. bilaay walaay daa bëri. mat na 2 millions. xaalis bëri kay. barki allah mat na 3 millions. liñ ma fay dafa bëri. loolu liñ ci def ci gàllaaj xaalis bi liñ ci def ci gàllaaj laa man sama combat billaahi nu Balla Gaye di waagee ak Modou Lo laay waagee. ma wax la leen. guy gi jël na avance man lay xaar. waaw waxaatal ma dëgg. guy gi jël na avance man lay xaar. ban guy gi. guy gi bu rëng-rëng bu yee daan. avance moom kam. maa ngi man maay am lu may xaar foog ma réglé samay maara ba pare. yow nga yaakaar ne guy gi lu mer ci réglé du ko sotti sa kaw. ma dóor ko dóor yu métti. mais ngeen ko école Lune Mor Fadam. voilà dugaat. guy jël na sama avance. instant bi kay si man la des. booy da ngay théâtre wala lan. billaay. ah. Asiya daa ñàkk. oh. man nga di Asiya nii. ma ne. jël avance guy guy gi jël na avance man lay déglu man lay xaar. man maa si des dañuy waxaale si kase. waaw. te su ma jugee guy gi Balla Gaye am na problème. ah. barki maam Fallou. est-ce nga ñooñu. waaw yow. fa laa jugee di sama combat bu Siteu mooy ëpp coow maag guy gi. waaw. kon Balla Gaye ak guy gi du kaa bu Siteu xale la may xale. ñu war a bëre. mais guy gi. tamit nañ waxante dëgg. guy yow guy gi ma ko jàpp fu dul si karaw dama koy daan. Balla Gaye du kaa. waaye Balla na topp fële. <laughs> tapet la dama ragal buntu gaalem laa dem. ñu ne neew fi ma koy woo appel vidéo. jël na la. jël. Balla Gaye sama appel su ko gisee damay jël wala suñ dajee si mbedd bi dañuy xeex. léegi bu ñu ko defee appel lu mu la wax. naan ma waa coo jubul naa la may moom góor la dafa baax barki yàlla neen daf may may chance moom. yow sax nga jël avance Balla Gaye jàkkaarloog moom di léewtoo moom. bu arbitre sifflé léewtoo di si am de si kawam laay dox jaxase ko sànni fële. mais Laurent sa combat bu Siteu ba arbitre sifflé moo tax nga arrière ñeenti dañ ma xaa mais man du ma arrièreal góor. ragal laa bu mag tàppet bu mag laa. Uh-huh. waaw. bilaay dal tal Malta. loolu entraîneur bi la ko wax wala sëriñ bi. entraîneur bi ma ko wax ak samay mag. Uh-huh. waaw. bi ne la nga lañ ma wax bàyyi koog làmb ji. ndax su taxoon dëggal sama bopp. Uh-huh. billaay walaay combat du neex. day arrière. mais nga génn ñeent yoon. damay daw noot ñett fois. quatre fois la. trois fois la. non avertissement. Ah. waaw ñett ñett yoon nga génn. waaw ah. mais looloo tax ñu dagg sa xaalis. avertissement. waaw deux yi duñ laal sa xaalis troisième bi dañuy laal sa xaalis. trois avertis laa def ñaari. kenn du laal sa xaalis. Ah, ok la. mbër nga. manager la. man maa gën a xam lu may wax maanaam ñaar yu njëkk yi. ñaar yu njëkk yi. daguñu sama xaalis. mais troisième bi. lañ commencé dugg sama xaalis. waaw waaw loolu laa wax ma ne moo sa xaalis. mais luñ si dagg benn avertissement laa jar a dagg. jarul pour sax ma xamoon dafa bëri. bari sëñ bi am instant bi du ma reer. léegi su koor gu paasee tànn bëri xeeru day wow kongu. bu dëgër kéng. laa ilaaha illa daa. si digg ñànga tànk waaw si digg jong bi. digg mbay bu wow kong bi xeeru raay bi. wala baara mbay xeeru waaw bu ñuul kuku bi. mosoo gis baara mbay bu ñuul. sama koñ la am. baara mbay bu ñuul kungu. bilaay walaay amul benn teint. waaw noir la. teint bu ñaaw. ki ñaari yoon la doon lamb ki sëtu Fallaye la as mbaaye baayam mbër maa ngi nuyu nga daan jël bu waaw waaw maa lay fay bu baax maa lay bu baax père di la nuyu di nuyu Gora Ndoye nuyu Abdou Salam quoi di xamal ne nag làmb nag noonu la quoi làmb moom gaan entraînement la gëm sa bopp dégg say waxu kilifa ak déglu tamit magu làmb yi quoi loolu kase la quoi mais gaan yoo ñoo war a mëri mag yi nekk si kaw ñoo xam ne yeggaguñ te yàgg nañ si làmb ku si mel ne ay bullaal ay kulifay deux dañu war a may sance quoi ñu bëre ak ñoom yow daal ndaamay tolloo yow nga soxla. non man njool yi sax njool yi sax bu neexee sax ñëw ñu bëre alburi na ñëw ñu bëre. alburi men waaw loolu problème maanaam lamb la rek. lamb la rek mais instant bi nii booy ndaw yi dañ a may chance quoi ndax lamb ñun mooy suñu métier amuñu benn métier bu dul loo xam ne mooy lamb. dégg nga ñun dégg nga slogan euh, euh, euh, alburi bi. nee na su la nee nuus da lay ñuus daal di noos. waaw man moom la koy wax moom. Ah. moom a noos si kawam ndax man daan naa ko mbabat. Ah. man maa war si kawam. Mm-hmm. man maa waroon noos si kawam mais moom warul noos sama kaw ñun boo bëggee dëgg dëgg ñun waa moom ngi lay gis ñun waa Kër Fallaay ñun actuellement ñun dara nekkul suñu suñu mission si làmb ñun dañoo judd yàlla xam lan lañ bindee pour ñu judd pour nekk mbër mais judduwuñu leneen pour pour ñu nekk mbër kon yàlla bindew la menuisier bindew la euh, mécanicien lu dul làmb lu dul làmb ñun la ñu yàlla bindee kon loo loo def lu dul làmb euh, war nga Fallaay waa kay noonu la demee nag ñun làmb làmb tax ñun ñu juddu mécanicien taxul ñu juddu toog si bureau taxul ñu juddu. jàng école taxul ñu juddu ñu lamb moo tax ñun yàlla wàccee ñu si daara dunya. loolu kase la quoi mais gars yi nag ñu may chance quoi. ana Ama si jàmm bu baax. mu ngi si jàmm waxee ne euh, maanaam euh, aj nañ ko. noonu ko dundee. waaw mais tamit nuñ ko war a dundee rek bis bi dépassé wuñu moom kay la bis bi dépassé muy nekk fii di. def dafa dépassé Modou moom la bis bi dépassé kay. maanaam moom bisu lam mosu koo dépassé mais bisam bëreeg Ama moom moo ko dépassé. dégg naa Ama da ko déranger Ama da koy déranger Modou Lo Ama da koy yàgg a déranger barke sëñ di ko ñaanal nag mu wér si jàmm ñëw si jàmm ñëw fii si arène national bi jàmm Ama daan si jàmm mu ñibbi si jàmm ah, bu xeexee gaañu bu bëree bëree ba làmmiñ bi wadd fii <laughs> kase jërëjëf ñoo fa réew